liggéey sëñ Tuubaa bii liggéey bi bii mi tàmbali da cee waaye liggéey bi réy na yaatu na te il mu yóbbu ko fa waaye nag du tee ñu ñaan nanu ñaan liggéeyu sëriñ bi bii yàlla kattan nañu nun ñii fi teew nii kattan nañu ak ñeneen ñenuy wuutu ëllëg suñu moom kàttan na leen ba ba ba bis ba sëñ bi soxlaa jataay bii muy bis bu bis bis bisu bisu bisu daje ba rek kon ci barkeb sëñ bi ñi yor liggéey bii ñu nekk ñi fi teewe ñi fa teewe nii ak ñay ñëw ëllëg ñay ñëw ëllëg muy bii liggéey bu mu laal suuf mukk nan ñaan bu mu laal mukk lenn dong dong dong moo war a liggéey bi mooy yëkkati baatu sunu borom sëriñ bi ñëw leen yëngutam bépp léppam eh, jàddul lépp mi ngi ko def ci yëkkati baatu sunu borom ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong moo moo moo moo moo ko fi indi loolu it lañu fi bàyyil mooy suñu dono ci loolu rek lañ war a nekk suñu lépp ci loolu lañ ko war a def di ñaan nag ñun ñii fi teew bu ba dolli nu kàttan eh, ban mën ko taawu liggéeyam bii bu yàlla bu nu yàlla wooyee eh, eh, ña ña ña ña wuutu yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi أقال بكى على سادتنا kon nag bis bañ ci mën a jëm jëmul fer gis bañ ci mën a jëm kon nag jërë jëf jërë jëf jërë jëf liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi te nuju daaw ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi oliya ba bis bi jiba ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa sëñ tuwaa di demoo ba bis bi jiba sa fa sëñ tuwaa di demoo yàlla alhamdulilah yàlla yàlla boole ca na noonee foofee muy demoo yàlla nu si yàlla boole ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ tuwaa xool xool sëñ tuwaa ga ca biir ñu yaa ngi bokk nga ci ñaan bi waaw ndam ndamam ndam ndamal ëllëgam loolee yàlla nañ ci bokk waaye yàlla nañu gën a dimbali itam ba liggéey bi liggéey bi ñu taawul ko kooku ba bis biñ ci ba loolu rek lañ ñaan ci barke ci barkeem ci baaxam ci ngëneelam ci fàggu jëfam nag ndax lépp fàggu na jërë ngeen jëf kaanu yow doona tal kal wérdi ma baaxin min la la liminas musi

يدفل مداجع في ليل جنوبهم ناسي نسل موالي لا بالبشارة